jëmmaal ñi nar a bokk ci assise nationale de la justice nar a am 28 mai bi ñu dëgmaal ñu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak ñetti nit ñoo xam ni nar nañ faa teewal ay institution ay kuréelu politique diine culture waaye itam bépp secteur d'activité waaye mu mel ni ay baat jug na ngir ñaawlu seen ñàkk bokk ca liste boobee bokk na ca cellule des cadres bu parti éthique ensemble pour le travail l'intégrité et la citoyenneté di ñaawlu ndogal boo xam ni jàpp nañ ni nguurug Sénégal jël na ko bañ a invité Ibrahima Hamidou Dème ñu koy wax juge Dème ñu jàpp ni ku am wàll la ci justice wara bokk ci assises nationales yi ñu nar a amal. mu di loo xam ni bu ñu sukkandikoo ci kuréel googee amul benn wéeruwaay te itam dafay nasaxal coppite yu ñu nar a indi ci wàllum justice parti éthique jàpp ni ñàkk a bokk ay kàngam yu mag ci wàllum justice yu ci mel ni juge Dème dafay naxasal dëggu gi nga xam ni war na am ca waxtaan yooyee ba tax na muy sàkku ci nguur gi ñu xoolaat boobee ndogal la ndax jàpp nañ ni nag loole képp moo mën a tax ñu am ay déggoo yoo xam ni dana mën a jëmal kanam secteur bu justice. waaye daanaka ca saasa la département bu justice daal di tontu jaare ko ci seen page Facebook ministère bi di xamle ni liste biy circulé jógewul ci ay service am rax ca dolli nii nekkul ab liste boo xam ni daanaka mat na bu ñu sukkandikoo ci ñoom liste boobee dañ ci doon liggéey képp ñuy xam xamle ni nag liste bu mujj bi daañ ko génne ci waxtu yi di ñëw.